tey dañoo dajale woon jigéen ñi pour sargal leen ndax nag depuis boobu ba léegi jigéen ñi dañu nekkoon ñoo xamante ne nii dañ doon yëngutu ko ci nekk rek ci goxam donc loolu nag ñu ne il faut que jigéen ñooñu ñu dajale leen ñu dajale leen à travers une fédération bu ñu leen dajalee ba pare former leen bu ñu leen former ba pare ci la ñu door a jox leen ay financement jox leen ay financement lu toll ci ñaari million ak ñeent fukki junni donc loolu dañ ko def pour accompagner leen parce que suñu programme ci jigéen ñi dafa nekk ñeenti pàcc pàcc bu njëkk bi mooy ñu organiser leen organiser nañ leen ba am nañ tey fédération ci jàppaleeg chef service département euh, de développement communautaire kon former nañ leen am nañuy papier donc li ci des nag mooy gunge leen ni ñu leen di gunge mooy dañ leen di gunge ci financement nga xamante ne wax naa ko léegi nii ñaari million ak ñeent fukki junni ci lañ leen jàppale waaye loolu aussi doyul parce que ku nekk xam na président de la république ñeewantal bi nga xamante ne ñeewantal na ko jigéenu kaw gi ba tax na mu ne dina leen jàppale ci li nga xamante ne ñoom moom la ñuy liggéeyee ngir mu yomb ci programme boobu ak ci politique boobu ci la commune Thiakhar dugg rek ba tax mu ne damay jël initiative ci ñaari at ma dote jigéen machine wal ak juróom ngir jàppale leen ci liggéey bi nga xamante ne ni moom lañ koy liggéey pour liggéey boobu gën a mën a mucc ayib donc loolu nekk li nga xamante ne ni ah, moom lañ doon def tey à travers nest euh, fédération des femmes j'avoue ko xawoon na jafe tuuti waaye nag loo gis rek danga koy planifier da nga koy planifier bañ koy yàkkamti ñu commencé di def information di sensibiliser di leen wax lan mooy njëriñu booloo lan mooy njëriñu daje bi ñu defee loolu ba pare nag ci la ko ñëpp xam ñu wëlbateku defar li nga xamante ne nii moom mooy fédération bi boobu nag defar nañu ko ci ndimbalul ki nga xamante ne moo nekk chef service départemental bu développement communautaire muy monsieur Badiane ci la ñu jël présidente bi nga xamante ne nii moom mooy Ami Faye ñu tabb ko ci bopp ñu tabb ko ci bopp jigéen donc loolu mooy li nga xamante ne nii moom moo jur tey bes bi nga xamante ne bés bu ñu ñu yàkkamtewoon la ci caxar ndax bés la boo xamante ne nii dafa dajale jigéen ñi ah andil leen li nga xamante ne nii dëgg-dëgg mooy développement andi moulin à mille dote leen ci financement ñaaxaat leen pour que ñu gën a mën a yaatal ba 62 villages yëpp ñu mën ko couvrir tey comme ñu ngi couvrir ñeent fukki dëkk ak ñaar ak ñeent donc leneen li ci des yomb na mooy nañu continuer waxtaan wi rek ak sensibilisation ci jigéen ñi. xam nga Caxar moom dafa nekk commune boo xamante ne nii euh, dans le cadre de la coopération décentralisée parce que acte 3 de la décentralisation moom moo ñu may ñu mën a génn dem wuti ay partenaires ci loolu ci la génnoon dem fi nga xamante ne nii moom mooy France ak fi nga xamante ne nii moom mooy Grand Grand Avignon ñu ñoom partenariat ñu may ñu ay oto yoo xamante ne xale yi danañ ci mën a jàngee ji donc loolu mooy li nga xamante ne nii moom moo indi oto yi nga xamante ne moom la xale yi utiliser di ko di ko jàngee jekk ñëw waaye ci loolu itam ñu gisoon ne tam pour que oto yooyu dundu gi mën a yàgg ñu gisoon ne yoon bi dafa amoon ay jafe-jafe ci loolu ci la ñu bindaatoon ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy feera wax dëgg yàlla joytu leen loolu ñu ne ñu amul problème ba euh, loolu jël nañ ko dugal nañ ko seen programme ba nga xamante ne nii bésu tey ah ñu ngi euh, bitime tali bi nga xamante ne moo jóge Kër Daam ñëw fii ci Caxar nga xamante ne liggéey bi commencé na euh, euh, guddaay bi mu ngi toll ci ñetti kilomètres nga xamante ne loolu liggéey bi commencé na loolu dafay permettre rek tout simplement oto yi nga xamante ne ni moom lañ jëlee woon France oto yooyu seen dund gën a mën mën mucc ayib ndax ku ne xam na ne oto moom boo amee oto bu baax ba pare li ci des mooy yoon bu baax yoon bu baax noonu nag ñu ngi ciy sant président de la République à travers son programme muy FERA ñu ngi sant autorité FERA yëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàpp ci liggéey bi ba yoon boobu tey mu nekk une réalité ba nga xamante ne liggéey bi commencé tali bi moom bokkoon na ci li nga xamante ne nii wax dëgg yàlla bokkoon ci li nga xamante ne bokkoon na ci li ñu gën yitteel ndax dëgg-dëgg boo jógee Kër Dame di ñëw Caxar da ngay obligé sax bàyyi fi piste bi jël euh, yoon yoonu yoonu tegg yi nga xamante ne yoon wi dafa yàqoon yàqu boo xamante ne wax dëgg yàlla c'était pratiquement impraticable donc loolu moo tax te Caxar soxla ubbeeku soxla ubbeeku accessibilité bi mën a yomb loolu moo taxoon ñu boole ko ci nga xamante ne mooy suñu ay priorité ba yàlla comme li ma waxee rek grâce au FERA yàlla dogal na euh, loolu nekk na une réalité fi mu nekk ni programme boobu mu ngi en cours te incha allah xam na ne fii weer wala weer ak fukki fan ak juróom mën naa am ñu euh, livré ñu li nga xamante ne ni moom mooy travaux yi.